asalaamaaleykum wa rahmatullah taxala wa barakaatuhu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiru di ko siyaar bu baax Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di nuyu sama waajur sëriñ Mustapha moom sëriñ Masamba di ko siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér Mbàkke di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki réew mi yëpp di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm di ñaan yàlla def ci diineen islam jàmm tey nag eh, dañoo ñëwoon mm, ngir màggal Serigne Massamba 2019 ah, Serigne Massamba kat il faut ñu wax ci moom mm, tuuti lu xam si moom sëriñ eh, Serigne Massamba day kenn ci Serigne Touba Serigne Massamba day kenn ci Serigne Touba li tax muy kenn ci Serigne Touba. yàlla moo ko dogal ndax euh, sëriñ Masamba bay boo ñu ni sëriñ moom rek la xam waaw Masamba sëriñ Tuuba rek la xam sëriñ Masambaat yàlla mayoon na ko moom it mu xam sëriñ Tuuba xam ko lool ba loolu moo waral ñu ci am ak leeral ñu ci bare bare dégg nañ ni xasida yi ñi xam dëkk-dëkk xam nañ ni xasida yi tey ñun buñ ci mënee jariñu yàlla ak sëriñ Masàmba la ndax sëriñ bi bim daan bind xasida yi da daan ànd ak àll boo xam ni day ñëw rek bind rek mu dem du mas du tomb kon sëriñ Masamba moo daan jël yat woowu nga xam ne sëñ bi da ko jël rek tëral ko sëriñ ma Masamba moo daan xam lan la sëriñ bi bëgg a wax fii jël ko sottiwaat ko maas ko tomb ko ba tey ñun ñëpp ñu ci jariñu kon bu nuy wax xasida yi sëriñ bi moo bind waaye sëriñ ma Masamba moo tax dëgg-dëgg ñun ñu mën a jariñu ci xasida yi ndax bu xamutoon lan la sëriñ bi bëgg wax fii ba jël ko sotti ko tomb ko maas ko kon tey ñun duñ ci mën a jariñu ndax mbindum sëriñ bi sëriñ sàmba rek moo ko doon mën a xam lan la sëriñ bi waa bëgg wax fii ndax sëriñ bi da daan junj rek jox sëriñ Masamba moo koy eggale kon ñuy wax jërëjëf sëriñ Touba waaye jërëjëfatee sëriñ Masamba Mbàkke euh, sëriñ Masamba nag dafa am lu rëy ci yàlla dafa am lu rëy ci yonent bi sallallahu alayhi waaye tamit dafa am lu rëy ci sëriñ Tuuba dafa am cër boo xam ne ni kenn amu ko ci sëriñ Tuuba ndax li mu ak sëriñ bi moom rek moo ko am ndax sëriñ bi dañuy waxaan ne sëriñ bi moo ko defal léppam te sëriñ bi rek la xam loolu nag mel na ni cër bu rëy boobu am na lu mu def si njabootam ndax ngeen baal ma bu baax ndax ko tuut la ci yoon wi euh, dafa amoon ay jamono ci njaareem firange amoon na nag te firange gi yàgg na te topp nañu lool sëriñ bi dafa waxoon ni ku am looy wax nanga ko wax sëriñ Masamba ku am looy jox nang ko jox sëriñ Masamba ku ma sëñ Masamba neexut nang ma abal dëkk bi yàllaa ko wax ku am looy wax nanga ko wax sëriñ ma sàmba ku am looy jox nanga ko jox sëriñ Masamba ku sëriñ Masamba neexut nang ma abal dëkk bi yàlla ko wax sëriñ Tuubaa moo waxoon li ci njaareem fiiraange daal dugg am ñoo xam ne ni jëfe nañ ndigalul sëriñ bi ba ca jinne ya bis boobu li jébbalu ci sëriñ ma sàmba si ay doomu aadama ak i kenn xamut nu mu toll lañ fa indi tamit kenn xamut nu mu toll waaye la sëñ Masamba joxe tamit kenn xamut nu mu toll am si ñoo xam ne nii jëfewuñu ndigal la dañoo am fiiraange toog ni ñoom li ñuy indi sëriñ bi rek lañ koy jox mais ame loxol sëriñ bi wala duñ ko joxe suñ boroom si mayam gu réy ga lam may ma Masamba sëriñ Masamba yëg ko ci baatin daa di defarlu ay gaali weñ teg ko ci penc mi ñi nga xam ne dañoo bëgg a jox sëriñ bi te mënuñu koo gis ndax sëriñ bi fatu na ñuy ñëw xam le ni sëriñ bi moo joxe gaal moo teg gaal yi képp ku bëgg a ñëw joxe sa àddiya te mënoo koo gis nga def ko fii mooy gaali weñ yu mag yooyu ci njaareem mag ñi nga xam ne nii am na mag ñoo xam ne nii ñi ngi fi ta seeni waajur fekke nañ ko xam nañ li may wax ñu teg gaal yi ñi nga xam ne mënuñoo amuñu xolub jox sëñ Masamba seen àddiya ñu dem di ko def ci gaal yi muy may ko ko suñ may mu xamoon sëñ bi te dégg ko lool te yàlla may ko mu xam doomu aadama yi lool bu ko defee bu guddee sëriñ Masamba jël magi taali yi ñu jàppoo gaal yooyu dem sottil ko sëriñ bi loolu lépp mm, topp sëriñ Masamba ci may gu ko yàlla may ag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sëriñ Tuuba waaye xeex bi cosaan la fiiraanga gi cosaan la si ñun waaye nag ñu santaat yàlla bu baax a baax sant yonent bi sallallahu bu baax a baax sant sëriñ Tuuba bu baax a baax ndax ah, bu fekkee ni yaa ngi sa bopp ni ci sa bopp yaa ngi yëg sa bopp ci ak gëm yàlla di yëg sa bopp ci ak topp yàlla di yëg sa bopp ci takkaat sa laxasaay ci ndigalul yont bi salaa salaam ak sëriñ bi kon li la war mooy nga sant yàlla bu baax a ñoo ngi sant yàlla di sant yonent bi salaa salaam di sant Serigne Touba ak Cheikh Massamba yokkaat sunu laxasaay bu baax a baax a baax te ni ñun lool rek a ñu war liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi salaa salaam liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Cheikh Massamba rek moo ñu war te moom lañ fas yéenee def incha allahu rabbi ba ba ñuy xeex nag dafa yàgg ci àdduna noonu dafa yàgg ci àdduna ah, fii moom képp ku fi nekk te teg sa tànk si lu baax faw nga sonn ndax ñi ngi gëm ni nit de mënta am lu baax lu dul ni dafa jànganteeg ay coono ñi ngi gëm ni nit de mënta am lu baax lu dul si ni dafa jànkoonteeg ay coono Ah, sëriñ Tuuba day coono yin ko teg amut lenn loo xam ne nit nit mas na ko teg baaraam ni lii la sëriñ Tuuba def ban teg ko yi coono amut lenn lu nit masa teg baaraam ni sëriñ Tuuba lii la wax ban teg ko yi coona kon nag ñun lépp lu ñu teg nungu nan dan ko ci barkeloo ndax ay ndongo yu ndaw lañ lépp lu waxit nangu nañ ñu fëseene ko ci barkeloo ndax ay ndongo yu ndawlan ay baay faali sëriñ Tuubaa lan ay baay faali Cheikh Masamba Mbàkke lan ay baay faali Cheikh Mohamad Fadel lan lépp lu ñu teg nangu nañ ñu barkeloo lépp lu waxit nangu nañ ñu barkeloo ko ci mbokk yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di siyaar di leen jéggalu di leen balu àq bu baax a baax màggalu Serigne Massamba 2019 ñu takkaat sunu laxasaay ndax Serigne bi jar na ko màggalu Serigne Massamba 2019 ñu takkaat sunu laxasaay ndax Serigne bi jar na ko jërë ngeen jëf.